Tidiane Daw ak activiste bu jege Alliance pour la République bi di Bah Diakhaté te waa division des investigations criminelles tegoon leen loxo dinañu leen atte en flagrant délit niki altine bi yemook ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weer bi ñu nekk activiste bi liñ koy toppee mooy yëkkati ay kaddu yu tegganewul teg ko ci ndodd koo xamante ne mën naa def wala mu am sañ-sañu njiitum réew mi imaam Cheikh Tidiane Ndaw moom itam offense boobee lañu koy ak fësal xibaar yooyu les accusations ñoom nag nanguwuñu ko bile mbir gën naa yee fitna bi jotoon a am ci diggante APR ak PASTEF ndax APR ba ñu ñàkkee pouvoir bi ci ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru mars bi ñu génn ñoom nag seetlu woon nañu ne dañoo noppi woon dal di bàyyi lu ñuy duppee période de grâce ñi nga xam ne ñoo yor nguur gi yenn jëfinu président ma Macky Sall ci wàllu politique ak ay communiqué yu bàyyee ci secrétariat exécutif national bi rek moom moo doon tax ñu xam ne APR mu ngi am ba tey waaye bile mbir nekk na ab prox ndoll ci ay dirigeants yu APR lu ci mel nii Abdou Mbow Seydou Gueye Pape Malick Ndour Moustapha Diakhaté Maître Oumar Youm Pape Gorgui Ndong ak ñeneen ñu dal di génn ci tekk tekkaaral gi ñu nekkee woon ki fi doonoon jëwriñ di Oumar Youm moom nag dal dinay eh, jàppale kii di activiste bi di Bah ci ab post bu fësal ci page Facebook am avocat bi di fàttali ñi nga xam ne ñoo yor nguur gi ne dañoo dogu woon ne dañoo bëgg a criminaliser lii di homosexualité fii ci Sénégal. nañu bàyyi caaxaan yi maa ngi féddali sama njàppandal kii di Bah waxoon naa ca pencum ndawum réew ma nii fasuñu yéene benn yoon teggi daan yi nga xam ni teg nañ ko ñiy def mbirum góor jigéen na te loolee lañ def ki waxoon ni nag day criminaliser homosexualité na ko def. am nañ yaakaar ni dana ko fësal ci déclaration de politique générale am li ci des lépp ay caaxaan la. waaye tontu gi moom jóge ci waa Pastef xaaruñu ko benn yoon ndax député Amadou Ba dal dinay def ab prox ndool ngir ñaawlu lu muy duppee tactique politique ngir bile opposition bu yees. jël ay faits divers di ko indi ci langum politique bi nekk na stratégie bu ñu nemmee ko ci opposition bi wante lii moom xaaruñu ko woon di jël ay faits divers di ko teg ci média yi ngir rek mën a dellu ci langum politique bi. kàddu yooyu la fësal ci page Facebook am Maimouna Bousso moom itam bokk ca Pastef jege loolu élimaanu jëwriñ bii di Ousmane Sonko mer ba futu la def ndax moom li mu xam xamle mooy ne duñu nangu benn yoon nekk ci kurub kuje gi ñu ñuy saaga ñu sosal di teg suñu der yi lu rafet ci suñuy gëtu doom tey ji ñëw nañ ci bopp nguur gi ñuy wëy di ñu saaga di yàq suñu der ci suñuy kanamu waajur ak i njaboot yile kàddu la may mën a Bousso dal di fësal ci ab vidéo bu mu doon fësal en direct